neewuñu ko IGE wala Cour des comptes wala ofnak dafa ni da fexe ba Lonase perte ñaar dërëm donc da ngaa détourné xaalisam da ngaa lekk xaalis Lonase kenn mas ko sax posé question bi par contre wone na ci interrogatoire bi ne moom bi mu ñëwee fekke na Lonase dañ ko doon nax di ko gaañ mu jëlee chiffre d'affaires bi cent milliards ba trois cent milliards ki mu jàppanteel muy Mohamed Dieng xam nga wan bet si euh, bet bet xam daf fekkoon vingt millions par mois l'ONAS redevance bi mu ñëwee mu fexe ba Mohamed Dieng di fay wan x bet noonu la wan mooy premier wan x bet la rek premier mooy wan du bu ma ne won ni ma premier donc won x bet wala premier benn la Mohamed Dieng euh, bi bi kii ñëwee bi bi ñëwee vingt millions la doon fay redevance Lonase la du ñu benn plateforme pour xool li ñuy gagné parce que Lonase xam lu gars yi gagné te Lonase moom moo yore le monopole ci affaire carte xaalis ak jeu de hasard Lat Diop créé benn plateforme bu ko may Lonase mu xam li gars yi gagné bañ ko xamee nag ca la Mohamed Dieng ak 1xBet di fay au lieu de vingt million deux milliards par mois loolu nag neexul Mohamed Dieng tey waxi Mohamed Dieng rek lañ doon wax ak lu muy sosalee euh, lat mi mere woon ndax da doon nax Lonase xool différence vingt millions ba deux milliards cent fois vingt million la la doon versé finalement tous les mois fekk Mohamed Dieng da doon nax Lonase di encaissé de moom rek ay milliards di sànni vingt millions weer bu dee Lonase plateforme bi la créé tax mu xam di gis li ñuy gagné ñoom ñëpp di leen taxé tëq leen li ñoo leen war a tëq loolu indi contentieux bi te yow tey suba ba ngoon jot affaire Mohamed Dieng la ñuy wax. lu ne sosal na ko lat dem na ba ne lat dafa am kër Grenoble lat ne man xaw ma Grenoble donc boo seetloo ñaari ñu topp ñaari infraction yi mooy benn bi détournement de deniers publics waaw deniers publics kan la xaalis kan la la laal l'ONAS bi doon jiitee newuñ ko nee naa du IGE du Cour des comptes du OFNAC du sax rapport interne du kenn ku ni lat laal na ñaar dërëm même interrogatoire bi audition bi benn commissaire neewul lat dañ ne dañ laa topp ñaar dërëm amul da nga yoreel dërëm Lonase da ngaa randal dërëm da ngaa sàcc ñaar dërëm amu ci kon bu ñu nee détournement ñun joobee nañ deuxième infraction bi ñu ne blanchiment mooy da ngaa détourné xaalis bi pour nëbb xaalis bi nga tabax ci ay immeuble am nga sax France ay immeuble notamment Grenoble am nga fa immeuble laaj na leen ma de xaw ma Grenoble France de xaw ma fa Grenoble man de Paris la xaba Orléans Orléans bi sama doom juddoo waaye yàlla xam na ne xaw ma Grenoble te aw ma immeuble ci àdduna bi yëpp waa léegi néew ñu dafa sàcc ñaar dërëm néew yoreel na dërëm Lonase néew ñu randal na ñaar dërëm ci xaalis bi ko dénk Lonase kon lan la détourné ak comme détourné xaalisam waa ñu ne dafa def blanchiment moo jël xaalis boobu mu sàcc jëlu ñaar dërëm de tabaxee ko ay immeuble Grenoble ñu ne ko waaw lat Grenoble am nga fa immeuble mu ne man <laughs> man xaw ma Grenoble sax xaw ma fu mu féetee France xanaa ma ne fen yooyu ba ëpp na xanaa xam nga ne sos bi ëpp na waaye il fallait que tey lat ci ñaari point lañ ko téye de ci ñaari point benn amu ci xalaa joomi ngeen waaw nii daal nii daal la war a doxee nii nii daal la c'est-à-dire da ngay toog ñu waxal la loo xam ne dara amu ci même bi dee laaj laaj ñu la ci loolu dara parce que loolu ñu la laaj dañ cee tonto yi yu leer ba. coow li yëpp tey diggante Mohamed Dieng la woon ak ak Lat mais lii Mohamed dafa porté plainte contre Lat bu dee noonu lañu ñu yaakaaree reddition des comptes ñu dañuy foog reddition des comptes ñaan dénk nañ la boîte sangam ranal nga fa nangam wàññi nga xaalisu boîte ba sàcc nga fa nangam waaye barke alquran neewuñ ni Lat dafa laal ñaar dërëm ba léegi mënuñ ko wax détournement dañaan sax détourné nga un milliard wala dix milliards wala dix francs wala 2 francs wala 1000 francs waaye dara parce que détournement amul ci débat bi yëpp ci fin ba ci guddi gi amul. Euh, non ñëwul non waxul dafa yónnee ay këyit dafa jël ay affaire jël ay mbiram di sosal lat ay wax yoo xam ne moom kenn moo koy wax ay këyit yoo xam ne moom kenn moo ko bind loolu ça n'engage que lui du dëgg loolu nag ku mer la am na sax wax yu garaaw yu wax lan doo du ma du ma ci loolu sax dafa ëpp dafa ëpp waaw du ma ci wax loolu loolu bis dana ñëw dinañ ci waxi wax na wax na lu garaaw lat loolu luy tax boo ko joxantee paaka mu renne lat ndax li mu waxal lat garaaw na lool lool lool loolu noonu mën na tax ko jox paaka mu renne lat néew na ko daanal tëj ah tey nag bu dee bu dee nag nee woon na ko dans la tëj pour financier ñëw ñu jàppalu lat tëj ko ndax Mohamed Dieng ti LONASE portewul plainte détourné wul ñaar dërëm nee ñu ko lii nga yoreel LONASE ñu ne ko da ngaa détourné alal LONASE loolu moom jaaxal nañu tey dëgg dëgg fi lañ yennu tey ba ci fin bi le mot détournement ñu ngi soo génn ci biñ ne ñu ngi nekk procureur moo joxe instruction dax dañu bàyyi lat wala déet ca la policier ñëw ni ah nee nañ ko dañuy arrêté yaa ndax détournement de deniers publics ak ak blanchiment ñun dañoo joomi di ah détournement xaalis di leen da ngaa détourné mille francs da ngaa radal mille francs blanchiment di leen da ngaa jël alal ji nga sàcc di ko nëbb tabax ci ay kër comme nit ñi dafa am kër euh, kër Grenoble euh, te amu ko nee na amoo benn immeuble partout dans le monde këyit lan amul këyit bu wane ni dafa détourné amul këyit bu wane ni am na immeuble amul këyit bu wane ni Grenoble am na fa kër ay waxi kese yoo xam ne pour yàq der la waaye kooku kay kenn mënu ko prouver loolu la ñu ne ko da ngaa détourné da ngaa blanchir ci newuñ ko lan nga détourné kañ nga ko détourné ñaata nga détourné koo détourné xaalis ak ñu da xamuñu xëy na dafa détourné xaalisu village d'enfants bu nekk bu nekk euh, boobu Yolasso wala bu nekk Congo ñu de xamuñ kenn la xaalisam. lu ma ci xam lu ma ci xam daal mooy lépp luñ ko waxal tey dara amu ci ndax bu dee woon dafa détourné danañ détourné na xanaa cent mille francs waaye doo dégg ñu ne ñaan nangam nga détourné parce que dafa laalul dara. ñu ne blanchiment da nga am kër ba Grenoble bu ne ma dem aw ma benn immeuble fenn Grenoble xaw ma ko sax. xanaa wax ci jeex na ñun tey dañoo kontaanoon bi ñu gisee suñu waa ji muy répondre question yi lu Mohamed Dieng wax mu mel ne Mohamed Dieng daal moom mooy état <laughs> reddition bu ñu wax reddition des comptes Mohamed Dieng Lat Diop Mohamed Dieng doon fay 20 millions LONASE Lat Diop di ko fayloo 2 milliards LONASE par mois loolu damay ni coow li ba muy rek la amoon ci woon X bet bu Mohamed Dieng. sa waaye ñëw ne na may def plateforme pour xam ni ngeen liggéey bi lu muy joxe lu ji lu muy jur plateforme bi génnee ay milliards lan léegi loolu naan da ci am deux deux milliards par mois loolu la ko deux milliards ñu bu doon sàcc nga xam ne Lonase euh, da ko doon perte la fexe ba Lonase au lieu de vingt million par mois muy gagné ci jeu boobu deux milliards oli lieu de vingt millions cent fois vingt mooy mooy deux cent fois li Ronaldinho gagné mooy vingt millions bi multiplié par loolu la la indi Lonase moo tax kenn mënu wax Lonase da nga détourné kenn mënu wax la da nga détourné da ngaa yokk Lonase jëlee chiffre d'affaires bi cent milliards ba trois cent milliards. te muy dëgg. et finalement lan mooy certainement lundi ak ban taxawaay ngeen war a am ngeen nar a am. waaw day continuer nekk euh, dossier bi dem ci parquet financier bu demee juge d'instruction yi bu dee ci diggante bi ñoom dellu ginnaaw. ah di demoon juge bi di ko ah ñun dañoo bëggoon ñu xam xanaa ko détourné dañ ni détourné nga xanaa 1000 francs wala 1 milliard wala 200000 ak 200000 ko moom loo détourné koo ko détourné loo sàcc foo ko sàccee kat kat moo perte de de 1 franc kat nga jël 1 franc mais mbir mi dafa doy waar. en tout cas li ma leen ba dox mooy lat leader politique la. ñu ngi jëm ci ay élection te Lat dafa am popularité Guédiawaye Lat aussi xam ngeen ne masul d'accord ak pouvoir bii di soog a kon tey santir nañu daal ah bañ ne bientôt semaine bii ah de des comptes day commencé parce que reddition des day foog ne ku jël alal réew mi da koy goqi waaye comme lan neewuñ ko jël nga jaar dërëm da ngaa yokk alal ji waaw reddition des comptes Lat moom yoonam nekku ci buñ ne lat dafa randal temps waaye barke alquran ndeewuñ ko da laal ñaar dërëm barke alquran kenn newu lat da ngaa wàññi ñaar dërëm ci lonaas da ngaa yokk lonaas waaw léegi lan mooy détournement lan détournement mooy randal mooy sàcc mooy tibb tibbul randalul sàccul léegi ñu ne ko blanchiment mooy li nga sàcc nga bu ko nëbb ko feneen mooy jël ay milliards tabax ko ay immeuble pour nëbb xaalis bi nga sàcc ñu ne ko Grenoble da nga fa am immeuble laaj na xaw ma Grenoble di aw ma beneen aw ma immeuble fenn ci àddina bi waaye dañuy ni preuve boobu kon amul ñu bëgg ko ko loxo ne ko non non non dañ lay garder à vue ah en tout cas sunu njort ñaw na trop bu dee lii mooy état général de la justice bu dee lii mooy indépendance de la justice bu dee lii mooy reddition des comptes yow randaloo sàccoo nëbboo tibboo tabaxoo ñu ñu sosal la téye la ah Sénégal de man de tiit naa ñun de tiit nañ dinañ ko élaborer dinañ waxtaan suñu biir ndax lii duñ ko bàyyi mu jàll lii lii lii lii duñ ko bàyyi mu jàll jaaye doole baaxul kenn du ko nangu senegal kenn moomu ko Sénégal ñun ñëpp ko bokk ñoo ci yem jaaye doole bi du jàll defante bi du jàll fii lay fanaan ci police